mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci mbiri ancien lutteur bi di wuyoo ci turu Boy Kaïré moom nag yàllaa ko dimbali waaye jamono ji kenn waxatu ko woon na loole nag la ko waral mooy bu ñu sukkandikoo ci journal bi di l'observateur ay bandi yu armé wu ba daal di fees del ñoo dem ci këram ga nekk foofe ca cité Dabaax nekk ca kër Njaayloo bëggoon ko cambriolé lu toll ci juróom benn nit ñoo armé ba dis gann daal di wàcc si ca kër ki fi nekkoon mbër di Boy Kaïré ñoom nag bi accès foofee ca kër Ndiaye Lo di makkan mi nga xamante ni fa la Boy Kaïré dëkk ñoom defkatu ñaawteef yi dañoo tiire ay bal yu bëree bëri ca noonee nag ci lañ dal di yóbbu lu toll ci juróomi xar yoo xamante ni yëpp ay ras laadum la mbir yi nag mu ngi xew guddig 18 jàpp 19 août bi ñu nekk moom booy Kaïré nag daanaka tiiru fital yi nga xamante ni sàcc yi tiré nañ ko moom moo ko yee ca noonee nag ci la dal di tëbee ci blalam dal rek lampe escalier ngir xool ana fan la jógee amee nag ci la daal di tëll rek yam ci lu toll ci juróom benn nit ñu dal di armé wu ba diskan daal di tiire rek ay tir en sommation ngir daat koy xupp mu daal di dëpp moom nag ancien lutteur bi ginnaaw rek bi nga xamante ni yam na ci assaillant yi wala sax malfaiteur yi ñu daal di koy allumer tiré balle ci la daal di daw sauver bakkanam Tactic TV mu leen di jaajëf